kaay Adama karaka la bi sifflé na Bébé Balla moo la féete ginnaaw moo ngemb lu weex li ngemb Lagos bi euh, Ram moom nga jàkkaar lool Bébé Balla Ram ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Bébé Balla nag dafa nar a dem Bébé Balla sëgg lu mu nar daa fas yéene bëreeg Ram Diop Bébé Balla Ram Diop door na ko coup bi dal am na lu naaw Ram Diop jëli daa mën a bëre Bébé Balla fi ko yegg sori na da lu mu yàbbi lan la protestant naaw na wala naawut ah Adama protestant bi naaw na wala naawut Ram Diop Bébé Balla ñu ngi Ram Diop da koo bëgg a sulli laay laay la laa xale yaa ngay bëre eh, tegal siège bañ na <laughs> mbot la ilaha illallah oh! waay Bébé Balla ngi eh, xale bi daanaan la la ilaha illallah eh, Balla Gaye numéro 2 doomu Balla Gaye Bébé Balla xale baa ngi nii daa mën a bëre ndeysaan daa mën a bëre ndeysaan daa mën a Balla ngi noonu waaw gannaaw ma sant yàlla baa jili jul si yonent bi baa jili tey waa Pikine maa jàppale waa Jurbel jàppale ma tey lamb ji nii baa jili sama yaay moo def regroupement bi te mag la elle est retraitée xam nga jël xaar mooy yëpp ko ci baa jili ñi ma fëgg bu ñu jàppale ma ku ci nekk bañ autorité fan autorité yenn autorité Pikine waaye di monsieur le maire Amadou Diarra borom Pikine Nord di ko ñaan élection yàlla ko yàlla may ndam ak suñu yaay Nogoy Seck jigéen ju mën góor la moom tamit nekk ci parti PDS di ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm. na ci li nga bëree tuuti. waaw li ma bëree yomb na boobu bërekat la ndaanaan la yegg na ma fu sori te dafa gàtt ndaanaan moo tax ñu yóbbu ñu ba septième combat ma daan ko jël bëre bàyyi ji damaa daan ay champion mënu ko maa génn bàyyi ji na maa daan caatu Daouda Fall. maa ko daan daan caatu maalo bu bu Grand Yoff maa ko daan daan Modou Lo Paris daan beneen caatu maalo bu Diourbel daan Rane Diop pourquoi fu ma jëm sama morom laa soxla ay ñoom albarka ay ñoom Mathia ay ñoom ñoom ñoo dañ may daw mais dañoo war a ñëw ñu bëre ndax ñoo war daan daan ñu leen waaw mi ngi noonu maa ngi kontaanee yéen ñëpp. gars yi Adama karakal la. bi na Bébé Balla moo féete ginnaaw moo ngemb lu weex li Lagos bi euh, Ram Diop moom nga jàkkaar lool Bébé bala Ram ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Bébé Balla nag dafa nar a dem Bébé Balla sëgg na lu mu nar daa fas yéene ba rek Bébé Balla Ram door na ko dal na Bébé Balla moytul am na lu naaw Ram Diop jëli daa mën a bëre Bébé Balla fi ko yegg sori da génn li mu yàbbi lan la protestant bi naaw na naawut ah Adama protestant bi naaw na wala naawut Ram Diop Bébé Balla ñu ngi jàppante Ram Diop da koo bëgg a sulli laay laay lan xale yaa ngay bëree eh tegal siège bañ <laughs> mbot laay laay lan la eh, waay Bébé Balla ngi eh xale bi ndaanaan la laa ilaaha illallah eh Balla Gaye numéro 2 doomu Balla Gaye bébé Balla xale baa ngi nii daa mën a bëre ndeysaan daa mën a bëre ndeysaan daa mën a bëre ndeysaan daa noonu. waa gannaaw ma baa jili jur si yonent baa jili tey waa Pikine dañ maa jàppale waa Jurbel jàppale ma tey lamb ji nii rek la demee. bàjjili sama yaay moo def regroupement bi tam mag la elle est retraitée xam nga jël xaar mooy yëpp def ko ji ñu ma fëgg bu ñu jàppale ma ku ci nekk bañ. autorité fan. autorité yenn autorité Pikine waaye di sant tamit. Amadou Diarab. monsieur le maire Amadou Diarab borom Pikine Nord. di ko ñaanal élection yàlla ko yàlla may ndam ak suñu yaay na sek sekk jigéen ju mën góor la moom tamit nekk ci parti PDS di ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm. na ci ni nga bëree waaw li ma bëre yomb na boo bi bërekat la ndaanaan la yegg na ma fu sori te dafa gàtt ndaanaan moo tax yóbbu ñu ba septième combat ma daan ko jël bëre bàyyi ji damaa daan ay champion mënu ko maa génn bàyyi ji man naa daan caatu daaw dafaal maa ko daan daan caatu maalo bu bu Grand Yoff maa ko daan daan Modou Lo Paris daan beneen caatu maalo bu Diourbel daan Rane Diop pourquoi fu ma jëm sama morom laa ay ñoom albarka ay ñoom Mathia ay ñoom ñoom ñoo dañ may daw mais dañoo war a ñëw mi ngi noonu maa ngi kontaanee daa mel ni bawol ñu ciy bëre mooy loolu de Mbaye Diouf a ngi noonu mbay siyaar naa la. waaw ah, maa ngi am jàmm bu baax. nan ngeen yebee Zal indi ko. ni ñu ko yebe mooy ni ñuy yebe mbër rek ni ñuy yebe mbër rek lañ ko yebe préparé na ñu mu war a paree poids la. day bëran def leng xam na li ci làmb xam na li ci bëre pare na tous les plans aussi am na ay combat yoo xam ne def na ko bii combat day passé rek mu bëre grand combat officiel xam nga li ma la mais instant bi moom vraiment pare na pare na tous les plans moom. day bëre xale boo xam ne pànk la pangalang la boo bi daa mën a xeex daa mën a bëre te dafa ës mooy Alboury. waaw xam nga moom nee na Alboury la la tudd mais Alboury dafa daw Alboury dafa daw dose lañ ko réyee. xam ma xam nga ustuwaar boobu boo am déet mais Alboury dafa daw ah. bi ñu réyee bi ñu réyee buur yëpp moom Alboury dafa daw waaye kenn rek ñen rek a dawul mooy ñi deg siin buur siin Kumba Ndoofeen Diouf fa maak ak fëndëb dañoo gérer siin kenn mësu ko moom te ñun foofu lañ dëkk. kon tey day dawaat. non day dawaat dañ koy delloowaat dooso fa la jëmaat di ñaanal nag ki nga xam ne mooy bébé Diène sama fils xam nga maa ko yar maa koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla génne ko fi mu nekk parce que dafa bokk ci làmb xale la. xëy na nekk xalem sax moo waral yu bëree bëri nii di ko dal ko quoi mais vraiment maa ngi koy ñaanal ci kattanu yàlla yàlla dimbali ko mu génn ak jàmm ak salaam parce que lu ne ci moom maa ko def ci moom sama fils la maa ko yar sama ginnaaw la doon fanaan barki sëñ Fallou bëgg naa mu génn lool lu ma ci amoon lu ma su ma amoon pexe mu ko génnee génne wallaahi asim ma def ko maa ngi ñaan dimbal nag ñu dimbali ma génne ko ngir jëmi Serigne Fallou parce que avenir u lam la te la xamul dara wallaahi asim fugu xale ko jàpp mais xamul dara. maa ngi ñaan yàlla ñu dimbali ko bàyyi ko ci jàmm ak salaam maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax di nuyu gars yëpp di nuyu salaam euh, mi nga xamante ni tamit day jàpp ci moom maa ngi koy nuyu bu baax quoi di nuyu Sénégal yëpp daal ci kattanu yàlla.